ki ni seetaan ci 28 pro TV mbokk yi ni seetaan ci seen site bi nga xam ne moom moo am euh, ñu ngi new yokk fii nak nga xam ne moom mooy ci autoroute bi nga xam ne la ñu inauguré tey di autoroute Ila Touba euh, tey nag euh, di alxamis ñaar fukk ci weeru décembre nag ñi ngi inauguré ñi ngi wax ak yéen nag daal di joxe ndigal nag ne nanu ko inauguré ci alxamis tey bi léegi ci teewaayu chef de l' état monsieur Macky Sall nga xam ne nekk na réalisation de 416 mu def ko nag ci diirub lu mat euh, fanweeri weer ak juróom-benn nga xam ne donc waroon na toll ci ñe ñeenti at loole nag ñi askan wi doon xaar loole nag taalibe yi doon xaar loole nag mbokk yi doon xaar ñu fàtt tegu xeer bi nga amoon ci ci teewaayu Euh, ki nga xam ne moom mooy sëñ Sidi Mokhtar Mbacké ñu ngi ñaan yàlla yàlla fay ñu ko fi def ci barkeem yokk leeram ñuy ubbi nag euh, yëf yi ci ndigalu nag ki nga xam ne moom mooy euh, xalif général des mourides Serigne Mountakha Bachir koy ñaanal mu yàq fi lool te ànd ak wér naal yi nga xam ne naal na ko suñu borom may ko bokk yeggale ko ci ak saxam ñu ngi ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo wuy si nan suñu borom fay leen ci teewaay bi defal leen ak yiw mu nekkoon ay ay ay ay baax baax ay tamit bëgg-bëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy askan ñuy fàttali autoroute Ila Touba day yombal dem beeg dikk bi ci mbokk nga xam ne ñoo jóge Touba ci lu yées ñaari waxtu ñii nag may wax ak yéen nag ki nga xam ne moom mooy euh, le président Macky sàll moom nag euh, cortège yi mi ngi ci yoon bi léegi mu yeg si dugg ci ci nga xam mbooloo mi gis ngeen ku dib sët ku dib euh, taalibe ku dib cheikh ku dib sympathisant wala ngay militant tamit mbaa ngay soppe mbaa ngay képp koo yaa ngi ci diwaanu Touba ak wala Sénégal ñëw nga tey wuyu si woote xalifa général des Mourides waaye tamit euh, ci teewaayu chef de l'État monsieur Macky Sall ñu fàttali ne daf ko dooree ci Thiès doore ko ci Diourbel Bambey daal dina yëg fii nga xam ne moom mooy gaar ñeenteelu gaar bi nga xam ne moom mooy nekk ci booy dugg si biir Touba kon nag réalisation yi gis ko tey nag motal nañ ko kon nekk li ñuy def moom mooy euh, xaaral bi ki nga xam ne moom mooy euh, le xalif général ak tamit ki nga xam ne donc moom mooy le président Macky waaye nag am na lu njot ne xalifa général dana fi teew sax ndax moom dañu waxoon ne moom mooy ñëw teewee jotaay bi de waaye tamit eh, xam naa bu teew rek ki nga xam ne mooy porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir moom moo koy euh, ñëw euh, teewal file ndax moom daal moom fekk woon na liggéey bu njëkk ba ak liggéey bi nga xam ne tamit moom moo yegg tey jii ñu koy inauguré di autorité la Touba xanaa rek euh, benn rek tempo le temps que ñuy xaar nag gis ngeen ñoom mbay peex ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy Farba Ngom ñu fàttali ne nag gouverneur yegg si na ñu ngi noonu di dugg ci biir ak le préfet ñoom ñëpp ñoom ñu ngi noonu di yegg si di dugg ci biir tente bi fii nga xam ne donc moom mooy kon président léegi-léegi mu yóbbu stade bi ndax yegg daanaka ci barab bi bi la jaar inauguré ko euh, inauguré fay fi nga xam ne def at bi nga xam ne moom la war a def muy fay ticket yi nga xam ne moom a a mooy yegg euh, noonu gis ngeen euh, ñi nga xam ne donc ñoom ñooy ci njaboot gi ñoom ñooy yegg si noonu ñu leen di ñu ñu leen di ñu leen di tàcc ñu leen sargal ci ay kilifa waaw kon kilifa yi gis nga fi leen leen yóbbu ñoom ci barab bale euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, autorité yi ñoom tam ci beneen barab fii ñu ngi fiy gis nag mbooloo bu takk lool boobu ba léegi ñu koy xaaral xaarandi kon le chef de l'État moom mooy daal di yegg si noonu léegi léegi ñu xaar ko rek gis nga président mi ngi ne di dugg si euh, président mi ngi ne di dugg si xam naa rek. Euh, su fekkente ni euh, est-ce que danañ mën a am est-ce que est-ce que rek euh, danañ mën a yegg si moom mooy li ñuy wax xam nga président kon yegg si na ci ci ci ci ci jotaay bi gis ngeen ko noonu oto mbaa ngi na le ndeysaan le président mi ngi noonu ci oto bi dégg ngeen mbay peex ni ko rek président ma nga na ci oto bi kon ñuy seen mi ngi sol benn grand boubou Euh, di wax nag ki nga xam ne donc moom mooy alors duggaat na ci biir oto bi xam naa day wàcc dox ak tànkam euh, loolu nag xam naa moom lay fas yéene def léegi euh, le président ndeysaan ànd ak une forte délégation ñu fàttali ne l' ambassadeur Chine tamit moom teew na fi foofu nag nga xam ne moom mooy da gis ngeen kon président dafay fas dox mi ngi noonu wàcc na ah, kon kon Macky président Macky Sall mi ngi noonu. mi mi ngi noonu gis nga gis ngeen ko noonee mi ngi tàllal loxo yi waaw waaw waaw président yegg si na bi euh, fan bi juróom benn waxtu jotee ba tegal ñaar fukki simile ak juróom la daal di yegg si fii ci Touba autoroute Ila Touba ngi noonu kon mbokk yi waaw le président Rom léegi mi ngi fas yéene dugg si